Euh, ki nga xam ne moo fi bàyyi ko euh, way juróom wu jigéen nekk fii mu ñëw fekk si ko kon imaam ñoo ngi ñëw di la ko seereloo di ko seereloo tamit chef de quartier bi ne sëñ Muntaxa moo ñu yónni yëkkati na ñaari million jox leen ko kon mu doon loo xamante ne dafa ànd ak nag ay ñaan ànd nag ay ñaan yoo xamante ne ñaani yi sax mu ëpp doole ndax ñaani yi àdduna ak àllaaxira lay boole kon lii ñu jàppalee ko soxna si njaboot gi euh, te ñu ñaan loolu mu gëj fi mu bañati fi am mukk ci euh, kon loolu daal moom laa doon jottali li ci des ñun dañoo baaxoowul di am lu ñuy wax dañ ñoo yónni te àggalaguñu li ñuy def war nañ fi jóge euh, dem ci yeneen i barab am na ñoo xam ne ay tawat lañu ñu am ndax ay blessure la am ñenn ñi ay blessure yu grave la dañ leen catégoriser ñeen ñi ay blessure yu sévère la ñenn ñi tamit yoo xamante ne c'est modéré waaye ñett yëpp ku ci ne xool nañu lu tolloo ak yi lañ la war a jox ñu am ci ndigal ba juboo ci suñuy kilifa loolu la ñuy ñëw di ko dox si. jërë ngeen jëf. ñun tam ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi rafetlu tam seen teewaay fii. ñu ngi nuyu kilifa bi nga xam ne moo leen yebal tey mooy kilifa ñëpp parce que woone na ko bi woone ne ko ne moom njaboot bi yëpp njabootam la kon moom yéene am mooy ñëpp nañu nekk ci jàmm même bu deful woon lii sax bu toogoon ñaan rek ñaan boobu rek dooyoon na waxatuma nag moo jël lu ma yor moo teg ko ci ay loxo yu wóor dox ñëw egsi ba fii fekk fi njaboot bi nga xam ne ndogal yàlla moo dal seen kaw te loolu mooy rôle jullit rôle jullit mooy boo gisee métit ci biir jullit yi jàppal métit boobu yow yaa ko moom te moom xalifa bi noonu la doxalee man dama koy suivre boo déggee waxam yëpp moom nitu jàmm la jàmm lay dox jàmm lay wax jàmm lay yéenal ñëpp kon kontaan nañ ci moom yàlla na ko yàlla yokk wér ak wérle yàlla yéno bi mooy yénu yàlla yàlla na ko yàlla yàggal ci loxam te mu ànd ak wér ak yéen ñi nga xam ne tam yéen ñoo koy jàppalee tam yàlla neen yàlla may kattan ñu ngi koy jàppale bi jaay nabil Moustapha njaboot bi itam kontaan nañ ci moom ñun tam amuñu leneen du dul ñaan ku la defal lu baax loo mënul mënul ma wax wax wax mën ko wax mën nga ko wax jërëjëf kon wax nañ ko jërëjëf kontaan nañ ci parce que fii karsi boo ñëwee ci karsi ñaar rek ñaar rek nga ñaar rek nga ci kii chef de quartier bi imam kon euh, ala kulli halin ñun daal kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ trop yàlla na ko yàlla yokk sutura yàlla na ko yàlla gën a guddal fanam yàlla na ko yàlla yàggal ci kanam njaboot bi mbébét bi nga xam ne moom la am ci senegal yàlla na ko yàlla defal lu ëpp njortam te incha allah xam naa ne bu bu ko yàlla defalee loolu Sénégal dana nekk ci jàmm ñun ñëpp xam nañu loolu kon yàlla na ko yàlla defee noonu xaasa asalaamaaleykum wa rahmatulah ah, ñu ngi sant bu wér di ñaanal sëñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal mu ànd ak wér ndax tiis bi diisoon na suñu kaw trop trop trop trop ba dama jëloon benn décision sax ma ne dañuy def plan wante depuis ku tedd ki jógee wax si ñun ñëpp dafa gës suñu xol ñun amuñu ku dul sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ñu fi ñëw yëpp nag bii moo ñu ci gën a neex bii moo gën a bës xol yi ndax su yónnee délégation bu mel nii waa Hizbut Tarqiyyah ñu ñëw teew fii si quartier bi man loolu rek doy na kontaan nañu trop trop trop trop trop trop vraiment kontaan nañu ñu ne lépp nag loo xamante ne jàppoon nañ ko suñu xol giif na suñu xol giif na nañu ñaanal sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér te sens la de lii moom sens la Sénégal parce que kilifa demoon na ba rafle wante bu neex ree jóge sëñ Mountakha ñëpp seen xol sedd waaw kontaan nañu trop trop trop dëgg yàlla xam na ne mënuma wax su mu nekk nii